Bye. gën a nosu ba gën a dëgër waaw ay jàmbaar lañu nag ñoom ñëpp wax dëgg yàlla am mënuma sax xayma seen njàmbaarte ndax muy góor di jigéen coono yi ñu ciy daj bari na mënuñu ko lim sax mënuñu ko lim waaye ñoom ñëpp sëriñ bi leen jaral du suñu jëmm yi du kenn sëñ Saliou moo leen jaral moo tax ñu sonne ci nii te ñu ci bëri xam nañu lu baax ràññee nañ ko waaw ba tax ñu ñëw fii bu ñëwoon sax def lu ñuy def delluwaat du tee sax lu ñu bëgg nu am ko waaye seen jëmm yi nga xamante ni sëriñ bee leen fi teg ngeen di kilifa gi bu jaaree ci yéen jaar ci bunt bi day gën a baax bu ngeen ñu naa ñaanalee it mel ni sëriñ bee nu ñaanal te noonu la dëggoo si ñun waaw moo tax na ma leen bu leen dem bu kenn dem te ñaanuñu ba noppi bu nu liggéeyee ba noppi it yàkkamte gi jaru ko ndax lu mu guddi guddi ñëpp àgg ci jàmm rek lu bëgg waaw nañu ñëw ñu ñaanal ñu te yewi ñu te bu ëllëgee yàlla dimbali ñu ñu fekke ko jëmm yi nga xamante ni nag yàlla dogal na fekk wuñ ko ren amoon nañu yéene ak pas-pas bi bokk taalibe yu bari ñenn ñi dañoo tukki te loolu lañ doon ñaan ñenn ñi am gàllankoor waaye bu ñu sañoon fekk ko ñàkk gi ñu ko ñàkk fekkee nag teewul seen dërëm dem na ci te seen xalaat yu rafet ñu ngi koy àndeek ñun ba léegi ak ñi nga xamante ni yëg nañ ko te mënuñoo ñëw yónnee nañ ñi nga xamante ni nag seen kàttan la ñu ak seen doole seen koppar ñëw def ko ci ñuy seen xel mu rafet lépp ngir ànd ko ñun waaye loolu lépp nag Serigne Saliou rek ko jar moo ko moo ko moo ko moo ko waral waaw xanaa ngeen ñaanal leen rek ñun lott nañ sax ci ci ci ci wax ji ndax wuñ ko waaye dañuy jéem rek waaw yéenay sunu jëwriñ nag xanaa ngeen ñaanal leen rek ñu am ci lu kawe njort waaw sama boroom dimbali leen ñoom ñëpp ku fi jóge rek boo dellu seewaat nga yokk ba yëg ko li nga bëgg sa xol nga am si lu kawe sa njort barkeb Sëriñ Saliou jërëjëf jëriñ yéen waa kër Serigne Saliou ñu ngi leen nuy yéen ñëpp si njiitul seen Ibrahima juuf ak ñi mu àndal ñu ngi leen di dalal jàmm di leen nuyu di leen sant di leen gërëm tey ñaan ci barke ki tax ngeen def lii sunu borom faj aajo yëpp yéeneen mbir yëpp ci barkeb Sëñ Tuubaa di ko ñaanal moom moomee it ndax moo war a lépp am sunu borom dolli ko ay leer dolli ñu tax ci barkeem di fekk doomu aadama ngi dox ci kaw suuf. lépp lu am ci xel koom ak lu lu ko jege ak lu ko waral lépp rek ca moom moomee la bàyyi ko mu sunu sang boobee a Cheikh Saliou Mbacké yàlla na ko yàlla yokk ay leer taas ñu ci barkeem na suñu borom doolee fayal barke sëñ Tuubaa di njabootam gi ñu bàyyi ci njiitu sëñ Cheikh suñu borom yàggal leen fi te wéral leen ñun ñëpp ba li ñu ci liggéey sëñ bi yëpp ñu mën koo matali ñun ñi dañu ànd kook ñoom dañu ànd ak ñoom liggéey bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax te di leen dalal. te di leen a xamal ni bégg nañ ci ñëw gii ngeen ñëw ñu ngi leen ciy sant baax di leen ci gërëm te xam ne na ko sëriñ bi digle woon na ko santaane woon boobe mu yiwi donga yi fooy ci daal daar Daaru Xuddoos ñu seen mbokki taalibe yi ngeen fi bàyyi danañ leen ko si di ñëw di leen seet ak di gëstu seen mbir day mel ni booba booba léegi yéen nga ca loola tegu leen seen tànk kon ñoo ngi ñaan suñu borom defal leen wér ak kàttan ak sago ba ba ngeen gën koo man ba li ngeen dajale yéen ñëpp indi ko fi kenn rek man ko te du moom ñoo ñee nga euh, tudd leen nga xam ne amoon nañu yéene teew te suñu borom dogal teewuñu it ña nga xam ne la leen gàllankoor ba teeñu ñëw te mbégte la moom yàlla na ko suñu borom yàggal lool te yaatal ko ñi nga xam ne gàllankoor bu am ba tey bu dee jàngoro bu dee lu mën a doon yal na yàlla na ko suñu borom teggi yéen ñi nga xam ne yéen a agsi it ànd ak ñoom liggéey bi yëpp it kenn ku fi indi aajo gu aajo ju mën a doon yàlla na ko suñu borom euh, faj ku fi indi jàngoro jàngoro ju mën doon yàlla na ko suñu borom saafara ci barke Sëñ Tuubaa suñu borom defal ñu yokk ak xéewal ak mucc ñun ñu ngeen fekk si daal ci njiitul waaye ci kàddu waa daara yëpp lay wax bëgg nañ ci seenu yoon te ñu ngi leen ci ñaanal yokk ak jariñu saayir ak bari ñu barke Cheikh Saliou Mbacké sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen baax ñu leen ñaan ngeen dem ak jàmm ak ak jàmm wëlbati si dellusiwaat ak jàmm ci barke Cheikh Saliou Mbacké jërë ngeen jëf jërëjëf